Sunugal 24 point net l'information à sa waaw njëkk nañoo bëre yàlla sunu borom may Modou Lo ndam mais ndam boobu buñ ko ka mayee tamit moom ah, Eumeu Sène ñëwaat na pour jëlaat euh, euh, pour bëggaat jëlaat revanche am n'est-ce mais kon maanaam euh, Modou Lo na xam ne ni Eumeu Sène dafa ñëw pour jël revanche kon euh, combat bële nu mu demee woon bu ko mayaatee gan gi combat bi du baax si moom. sama nu ma lay te nit moom boo xasee ba laalante yaa xam nit ki lu mu saf yaa may dégg kon combat nag combat bu muttee ngoog combat bu mutti lay doon. yomb. moom. si ndax kii dafa jóge si défaite kii jóge si victoire mm. te ki jóge si défaite day bëgg a tam moo kële ka daanoon moo daanoon kële kon du nangu tamit kële daan ka kii tamit du nanguwaat kii daanaat ka ñaari yoon. kon du yomb. ñu jàll sa bàkk ba stade sa yaram tàng lool ngay njuug di njaab di def lu la saf keroog nag nga indi confiance bu mot sëkk mais ba nga gëstoo gis Khadim ñaay gis Issa yi gis Baye Mandione champion boobu lan lan nga yëg si sa xol lan nga doon sentir moment boobu ndax gis naa ne boobu force bi dafa gën a yokk. waaw mais kontaan rek ndax tey jii mbooloo mooy doole ndax tey jii boo gesoo gis Issa Pouye gis gesu sa duraat gis. bàyyi ma ñoon gëstu sa euh, gëstu sa kanam gis Xaadim Njaay kon foofu sa xel day dal ndax mbooloo mooy doole yaa may dégg. waaw di leen nuyu tamit au passage di nuyu ñoom ñoom ñett ñëpp bu ma limee damay jum bëri caare yi ñëpp muy Baye Ma Ndione Khadim Ndiaye 1 Ousmane Diop Dios Khadim Ndiaye 1 Baye Ma Ndione Tres Ndiir kon maa leen di béggee bu baax a baax di leen nuyu di leen wax nag képp ku am combat yal na la yàlla may ndam eh, di ñaanal Baye Ma Ndione tamit yàlla na ko yàlla may ndam si combat bi mu jëm nii waaw ak Coly Faye Coly Faye waaw moom gis nañ ko muy njaab. waaw moom Coly Faye moom ñaa sama booy la ndax day sonn samay komba di ko ñaanal combat bi mu jëm la siis yàlla na ko yàlla may ndam ndax borom xol bu rafet la dara nekkul si moom bu ñu àndee sax man maa koy calmer bëggul kenn ku ma jigee bëggul kenn ku wax ak man kon kooku aw ma fayam. Hmm? sama nga gis ba ci balance bi bi nga yëgee mu ne waroo woon njëkk a yëg. waaw mais loolu lépp bëgg la rek ak bañ xam nga waa Fass dañoo bëri ay pexe ah looloo taxoon muy wax loolu mais tamit di ka ñaanal yàlla suñu borom yàlla may ka ndam le 6 bi si kat ci kàttanu suñu borom. Euh, sa diggante ak Ameth Deme mun nañ xam lan la yàq Ameth Deme. jotewu ñu daara jàmm ak salaam. jotewu ñu daara. jàmm ak salaam lañ see xaj. boo message mbëru caaro yi lan nga leen waaw mais euh, xam nga lu ma leen wax lenn la mooy maanaam mbooloo mooy doole te gis naa mbooloo moomu si waa caaro ñëpp léegi benn la écurie Thiaroye Kaver amatul écurie gëm sa bopp amatul écurie léegi Thiaroye sur Mer moo am écurie Thiaroye sur moo ñëpp léegi benn nañ ñooy xàtteendoo ñooy dóorandoo. maanaam ñëpp dellu si lépp ñëpp instant bi sëñ instant bi lépp mën na sëñ Fallou. <laughs> Reug Reug am na xaritu mbër wala amul xaritu mbër am nga yeneen xarit mbër. bu dul bu dul ama neex bu dul Siteu. non non amatuma amuma ko de. Eh, aw ma ko bu ma damay wax rek bu weesoo Moussa Ndoye jéem a sa biir écrit nga ko pare génnoo. am na ay xarit xarit am na ay xarit. ay mbër lañ wala duñ mbër lañ. non comme ñu aareen mais ay mbër lañ. bu ñuy bëre simple. waaw simple nañuy bëre. wax dur. ndax ñoo la doon jàppale sa combat. waaw ak waay ñoo la doon may contact. ak sama jamono ji. waaw làmb nag instant bi mu ngi jëm si kanam nag. ndax euh, ñun mbëri ñun mbëri laay waxal man si laa bokk. Euh, ak sunu mag ñi nekk si kaw. nañ may xale yi saas ñu ñëw bëreeg ñoom pour làmb suqaliku ndax tey jii. ku si mel ni la de mu ngi defar làmb ndax maye na sens Gris Bordeaux tamit dafa war a may Ama sens ndax lambu làmb la ndax loolay euh, suqali làmb mooy tax sponsor yi mën a ñëwaat. ñi si kaw ñooy may ñi si suuf. voilà ñooy may si ñi si suuf pour ñu mën a daje ak ñoom ndax làmb mën a jëm kanam yaa may dégg. yee loolu la ñu war a def lamb mën a jëm kanam sponsor yi mën a ñëwaat làmb nekk fu mu nekkoon mais instant bi làmb mu ngi ñëw ndànk ndànk gars ñu ngi mayante ñu ngi may sens waaw ñu ngi may sens. mbër yi yëpp nag axlu lamb mbër yëpp soo doon conseil lan nga leen di wax. bu ma doon. conseil conseil comme conseil bu demee nan. ci comportement. mbër nan la war a mel mbër nan la war a doxalee. waaw mbër moom mbër moom avant tout da nga war a oyof oyof di kafak sa gox. ci koo gis nuyu ko jàmm sant moom ndax euh, maa ngi maa ngi lii si benn maire jarul sax mooy waxturam benn meer la daa dëjëk koo xam ne mbër moom la gën a bëgg si àdduna mu tereekaa lekk tereekaa naan mu daw kotak rek mbër mi boobaq te ki ma lay wax nii mbër la xam ne bu baax li may wax maire boobu noonu la ko suuree maire bi moom ma toog wax ma ko noonu la ko suuree ba yi tey jii kon mbër yi nañuy def attention si nit bu la bëggee nit bu la bëggee nu nekk lay ñëwee si yow kon yow yow yaay xool yow yaa yor xol bu yaatu boo xam ne nu mu ñëwee si yow rek nga yëri ko noonu. Eh, mbër yi maa leen di conseillé si loolu tamit nañ ci bàyyi xel. kuy sa ci làmb. sama idole sama idole si làmb ji ah. yow xam nga ka. Ah, xam nga ka. xam nga ko xaw ma ko de. Oh, ka jarul wax. waxal rek ndax idole si làmb nañ ma ka wax muy mooy sama idole si làmb ji. kon maanaam na si day jàpp si say combat. non waxuma la day jàpp si combat yi. waaw ah, damay laaj. non non da nga maa laaj. ne ma kan mooy sa idole mooy la jigéen ñi mooy sama idole jéey na. ma ne la maanaam day jàpp si say combat. waaw wala déet question la. non non jàppul si combat yi. waaw da lay la conseil. waaw sama combat bi mu taxawee. oo na ma conseil ma. na ma waa Fass ngay bëreel équipe bu mag ngay bëri dañoo bëri pexe nangam nangam. xam nga lu ma lay expliqué ne ma bi may bëri gi giri nii la woon nangam nangam wax ji bëri bëri bëri bëri ne ma nag moytul nangam nangam ma ma dégg conseil après jéem a. sama benn xarit daf ma soo demee neen rek yee yee bi fan la ko fan la ba mu demee Amérique xanaa njëkk a jaar mais nag bi ñu laa ko tàmmee nag ndax man moom voyage bi dinaa voyage si at mi deux fois wala. yaa ma gën a ma doo koy laaj de borom Angleterre. waaw moo ma ne boo demee ci rek rek laajal ma ko loolu ndax rek fu mu doon da nga koo yàq sa lu wax ne yee. <laughs> waaw mais kàmm la rek xam nga boo demee États-Unis moom. looy njëkk xam moom loolu ci lay bokk. ndax looy wax rek da ngay wax yee. lang nga yow moom lang na mais tamit dara. <laughs> rek nu muy dundee biir famille am xaritam yeex. waaw mais comme comme d'habitude rek lu may dundeek ak samay famille sama waa gox comme li ma la wax rek. dind ak ñoom nice gis nga ne say carax laay sol si ci mbedd mi sol sama kilot foo ma gis damay bëranteeg ñoom waaw tam xale la damay bëri ñoom kaf ñoom ree ak ñoom toog ak ñoom at naan ak ñoom ataay loolu lañ am si man kon dama leen koy jox. parce que ubbi buntu yëpp du changé. non du ma mës a changé ndax man damaa teel a téye xaalis damaa teel a téye xaalis boo déggee damaa teel a xaalis damaa doon xale teel a téye xaalis yaa may voilà doon avant si làmb ji sax xaalis. <laughs> gars yi nag nee nañ sa xeex dafa des nee nañ Reug Reug bëree gu fi bëre boo xamante ne xeex la euh, combat bi ñu la doon xaar ci xeex mais nga téye sa bopp nangoo xeex. gis nga mbër yi ku si yaakaar ni Reug Reug mënta xeex ba nga jël ma <laughs> di nga bëgg a nelaw mu teel yaa ngi say voilà loolu foofu laa yem. mais wa salaam. tey nag rek dama lay teg fii nga may décortiquer en tant que mbër. Quench Diène Kairé ñu ne Quench dafa tëj bëre bi ba ma ko jëlee keroog mu ne pied bi mu teg moo arrangé wu Diène Kairé bu mu mënoon bëre dina indee indi beneen facette tey lan nga may wax ci ñaari mbër yooyu. waa xam nga lamb la. lamb di nga préparer loo xam ne moom nga bëgg a def boo ñëwee si géew bi do fër lamb la. ndax yaa ma gën a xam dafa bëri yaa ma gën a ah, ay bagages. bala bala ñëpp defal rek dafa bëri ay bagages n'est-ce pas dama lay li nga ma wax moom laa lay tontu da ngay bàyyi ba ma tontu la may dégg làmb moo doon loo xam ne tey jii da ngay préparer dara ñëw ba sa géew ba mun a fër. sa xel indiwaat leneen. te nit ki moom lu nekk si yow rek lu dal sa xel moom ngay def. yaa may dégg xëy na Coins looloo dal xelam moo tax mu def ko mais ñu ngi koy wax làmb noonu la daanuwul jàmbaar la. waaw di nga ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam. rek bàyyi ma man yow bala caaro yebee say fan si yeb la nga ne waa Pikine nag ku ne eh, dem gunge la xam nga bëri nga indi bu mot sëkk nga bégal fan si yeeg ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi ce que loolu noonu la gars yi doon xaar ci ñoom ay tëj laam waaw déglu rek ak nu mu mel ne xam nga ñoom kenn ku ne li may wax rek yàlla suñu borom da lay may benn bëre mm-hmm. benn bëre boobu mën nga see daan ay punkali punkal yaa may dégg mm-hmm. mais day dollu benn moment boo xam ne sa bëre da nga koy changé boo ko changé wul rek doo daana punkal yaa may dégg xëñ na nag euh, coin xel la euh, euh, conseil yi ñoo bëri si xelam xëñ na loolu la bëri waale loolu tax combat bi mel noonu mais bu jëloon décision combat bi dina mel dara mais di ko wax nag làmb noonu la ndax oo naa ka nekk làmb noonu la daanu woo jàmbaar nga daanu moo gën ndiil. ndiil moo gën asafur waa ndiil moo gën daanu yaa may dégg. conseil naa ko moom tamit dégg na ma te waroon naa ñëw si open presse mais xëy na daa lu ko téye waroon naa ñëw si lii bi caravane bi xëy na daa am lu ko téye moo tax. mais kon nag ñu ngi koy ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam jën kay tamit di wax tamit champion la dina ma lay expliquer ñoom ñaar ñëpp ah, remplir nañ seen contrat mais Sénégal lu doon xaar si ñoom gisuñu ko mais tamit wax ji dina bëri lu ne ngay dégg xam ne lamb la nag lambu moo te tëddoo noonu. Euh, ba tey ci sa ci sa laa ñëw yaa euh, Gris 2 bàyyi de nga danga ñi ko natt bi nga nattee ngeen bàyyante nga taxaw ne public bi jug leen boobu xam nga ne dara nekku fa danga doy waar. non non euh, entraîné na bu baax am na doole te Gris 2 li ma ko def noonu waa Sénégal xamuñu woon dinaa ko def ba si yow mii. ah dugal de man xamoo sama xalaat de sama xalaat xamoo. déglul rek. Euh, dañuy wax ak te yàlla rek tax yow sa xalaat gëma woon dinaa zongale yi gëri ay mbër ma xalaat lu raw loolu non jëmm yi bu ñu taxawee laa wax bu ñu taxawee moo ma gën a diis te boo leen wax doole moo ma si yow yow loolu ngay xalaat moo ma doole te doole du foofu. aywaay mu ngi wax géntam di wax sama géntam ma wax la dara nag. rek doole du foofu doole euh, doole ak diis bokkuñu euh, senegal loolu la ñuy juwaale yaa may dégg bu ñu jàppante noonu. bi ma ko téyee laa xam ne kii maa ko doole moo tax ba arbitre acté ma yëkkati samay supporter xam ne dama koy daan loolu la. xam nga des fois soo man sama sa xalaat bu ma ko jox ndax xam nga lu tax des fois nit dina am koofur nga foog ne dafa am doole fekk amul doole des fois nit dina ponkal nga foog ne dafa diis te fekk diisut bëre lu nekk da ciy am man xalaatoon naa ci lu nekk dara bettu ci seen bëre yéen <laughs> dara la. dara bettu ma. dara bett na la si nag. bettu ma de non na la si nag. waaw léegi xanaa kon da wax damaa faroon. non sax mais dal am na lu la si bett nañu waxante dëgg. <laughs> non dugaluma la. mais bëri la yow ndaanaan nga xam nga koy bëree kuy bëree yow da ngay dem mbapat ku ne nañ la nangul bu dee dëgg neex yàlla ngay dem mbapat di bëre ay 15 personnes benn jour di bët bëri nga ak poids lourd champion d'Afrique wax dëgg neex yàlla nag tey boo daanee giri war nga koo daan. waaw mais moo tax moo wax làmb la ki xam làmb dëgg-dëgg dina xam ne ni euh, Gris 2 moom bokkuñu qualité gaagaa mën naa bëre am na doole mais maa moom bokkuñu qualité kenn ku ne dafa am qualité li may wax rek man dama mën a bëre poids lourd yàlla suñu borom moo koy def. dama punkal dama ay damaa mën a bëre ak moom xam ka man damaa mën a bëre ak punkal. tey avance hmm. dina génn wala day dugg. non fi pour làmb. lamb ku ma boole staff bi ñu ngi fi. Balla Gaye mu ngi fi. xanaa déggoo ma teel na ñoom ñëpp ku ma lamb boole rek ma bëre ak ñoom. Balla yéen ñaar teel na wala teel. xanaa déggoo ma sama papa lu mu wax sama staff lu mu wax moom laay def. sa fan si de nee nañ ku la jëlul heure bi da laa ragal. waaw ay supporter la rek de seen bëgg-bëgg nañu wax yaa may dégg ñoom seen bëgg-bëgg nañu wax mais maa ngi fi di xaar combat sama staff sama papa ku ñu wax rek ma bëre ak moom nag tamit di sant yàlla di nuyu tamit. waa jilaa Sène waa Jila Sène ah maa leen di bëgg bu baax a baax waaw di nuyu waa Caalaan Jofior Fimlaan Nangan Samb ah di bëgg gars yi bu ma limee damay juum maa ngi tamit waa Caalaan gis naa ni taxawee si combat bi surtout waa Caalaan Baasul Jonwaar Ñoojoor Baasaar Ngajoor maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñëpp bu ma limee damay juum ah ak waa Gore maa ngi leen di bëgg bu baax a baax. ak waa Kaolack. lu sama dëkk. Kaolack. waaw ah Kaolack ma yàgg faa dem di bëre. ah bëre nga doon def. bëre laa ñu may ñaanal ñu fa nekk. ak waa Kolda tamit maa ngi leen di. yaa ngi may maa ngi leen di bëggee waa maa ngi leen di bëggee. nga sama si dama am ñu may ñaanal. foofu jàll Guinée. non Guinée tamit maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ndax non du caaxaan. Guinée am na ñu ma fa ñaanal maa leen sant bu baax di leen gërëm ndax gis naa ni ñu jàppee si combat bi ak waa Kolda ak waa Casamance gis naa niñ ñu taxawee si combat bi ak waa Touba ku si mel ni euh, sunu père Cissé gis nañ ñu taxawee si combat bi. dama mënu ma di nuyu tamit ñoom Bukar waa Kasoor fukki penc ñaari aw ma seen fay waa banlieue bi maa leen sant bu baax di leen gërëm ak waa Caare Géej aw ma seen fay. waaw waa Caaroy Géej aw ma seen fay gis naa niñ taxawoo seen doom gis naa niñ ma jàppalee te sa kaw sa kanam si kàttanu suñu borom. Eh, di nuyu ñëpp bu ma limee damay jum di nuyu tamit Mbayang bàyyi ñuy itam ñëpp pour ñëw si man ànd ak man si caravane bi kon aw ma fayam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bëggee di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm moo xam li mu bëgg yàlla na yàlla defal si barke Seydina Mohamed. sànq damaa dégg say biir wax nga ne sëñ Abdou Karim daa jàpp si sa combat lan moo la liyee ak moom dañ laa dañoo jàpp sa loxo yóbbu la foofu la yaa dem. man yàgg na mu faa dem man doonul c'est la première fois sax moo ko si télé. maanaam lambu boolewuñu. lambu boolewuñu dama faa yàgg dem. ak sëñ ak sëñ Fallou uh, ak uh, sëñ Moutala Falilou jàpp na si combat bi ak Laay Laay Ngor jàpp na si combat bi waaw uh, daam ñas jàppale ci bi ak waa Tëngéej yépp ak waa Mbaaw Tëngéej Mbaaw hmm, Bargny Joal imaam yi Joal gis naa ni taxawoo ci combat bi bu ma lima daal damay jum maa ngi bëggee ñëpp di di tamit léegi seen bu mbéy la ngi ak sama papa gis naa ni taxawee ci combat bi léyti aw ma fayam. dégg nga fay naan bañ wala combat ah loolu la yaa ko gis man na gisuma ko. Ah, man moom bi mu desee deux jours. Ah, non fa une heure ba desee moom xaw ma fan laa ne. oo dëgg yàlla nag. ci géej gi laa nekk nag waaw. di la gërëm. lay wax sunu gaal yéen sa kaw sa kanam rek ndax yéen a ngi dundal làmb. Eh, di leen ñaanal seen site bi yàlla na dem ba doon ay télé. Eh, ndax kontaan naa seen gis naa ngeen bàyyi seen yiite yëpp ñëw si ànd ak man si caravane bi. di leen sant daal di leen gërëm aw ma seen fay. waaw jaajëf. merci beaucoup merci beaucoup jaajëf. l'information à